yokk seen position de service mel ni que xumbaay ak moom ay yi ñu doon faral di gis ñoom dañ ko éviter bi bi ci dooleeku mu di sorti wu Biram Souleye Diop bi nga xamante ni daanaka wane na ci ne lépp lu jëm ci wàllu xumbaay ak mumbaay ba tuddaale ci làmbu ba ñoom ñu gàdd ko sax mel ni seen mbira mm-hmm. euh, loolu yëpp nañ leen ci keccat bokkatuñ ci euh, ku leen ko tuddee yàq nga ndax tax na nga am yaakaar ci gouvernement bi que ne fi ñu jëm dina wutee ak fi ñu jógee waaw man nag am naa ci yaakaar daal xanaa damay dëkk di wax ne rek yàlla bu yaakaar <laughs> am na signes yoo xam ne boo ko gisee sañ ngaa yaakaar sañ ngaa yaakaar signes yi mooy lan <laughs> Mansour fii li ñu fi xam képp ku mas a gagné présidence da ngay génn jubilé est-ce que xam nga ne Basirou Diomaye Faye Ousmane Sonko ba léegi génnuñu jubilé bi ñu gañee <laughs> génnuñu jubilé loolu junj bu rëy la te loolu mosul am ku ci gagné da ngay jubilé ba bët set wecc maire yi dong boo ko gañee da ngay jubilé ba bët set wecc nit ñi ñoo génn di jubilé te yàggul benn diir bu néew lañ ko def minuit une heure du matin ñëpp delluwaat toog mais ñoom ba léegi génnuñu waxuñu jubilé wuñu toog jàpp seen jàmbur. loolu mooy wane ne yëg nañu poids bi ñu leen. responsabilité bi benn. Mhm. ñaareel bi ci des ñu toog une heure de temps après quand wu pouvoir bi réclamer ne kenn gañewu leen dañuy dem deuxième tour. te tëbuñu wax. Mhm. te fi nu jaar sëriñ bi tëdd kaso. juróom-ñetti weer. génne ci kaso bi direct jaaroo sa kër dem di campagne fukki fan wala ñaar fukki fan daj coono di campagne vingt quatre heures. Mm-hmm. ñëw ba gañe aw nit ne la gañe woo. loolu boo ñàkkoon sa ko ci guddi gi ngay fëgg micro yi. ne du ma ko nangu parce que yaa ngi xalaat coono bi nga daj. ànd ak loolu yëpp dañ na tekk bàyyi leen rek mel ni ku yëgul ne ñi ngi doxal. dañ bi pour nga gis ne bu la yàlla dimbalee dalay roof ak mët. ñoom ñoo xëyaat bët seen waa léegi gagné nañu ñoom ñu door a génn wax pare ci amul jubile passation de service. Mhm. sëñ bi ay tëggkat lañ fa daan yóbbu. géwal yi ñëw. oui taaxuraankat yi ñëw. Mhm. Euh, bongomaan yi ñëw. tëgg rëjëx rëjëx rëjëx ñu wallaay passation de service boo ko daan gis dangay yëg ay million lañ fay. Mhm. yàq ci waa ji ñëw di jëli service kese. ñii passation de service yi ay photo nga ciy gis. da ngay xëy ñu ne def nañ passation de service toog ñu won la dossier yi nga jël ko dem te sëñ bi loolu mooy dëgg. loolu mooy rupture maanaam yanu miinoon ci ngumbaay ak xumbaay ak yàqum xaalis ñoom ñu ñëw dindi ko def lu sobre loo xamante ni du am benn ngumbaay du am benn frais ñu def ko ñu jublu ci liggéey gis nga dañ leen defal rek ñu liggéey. Mhm. fal rek ñu liggéey. loolu nag ma jàpp ne ay jàngat la yoo xam ne boo ko dajalee. da ngay am yaakaar ne ñii ci liggéey dëgg la ñu jëm léegi nag ah def nañ passation de service yi. <laughs> def ko ci dal ak jàmm. Euh, ci biir loolu nag. pour wane ne rupture am na. ci nga déggee Birame Souleye Diop ci la waxaale ne. Euh, en tout cas gouvernement bii di ñëw moom ay affaire wu ay làmb ak ay tànn béer ak yooyu moom kenn du leen ko tuddee. Mm-hmm. mbaa moom ku ko tuddee yàq nga ko mooy du fa jaar. Mm-hmm. wax ji nag foofu la ko defaree. Mm-hmm. maanaam xëy na jàpp ma ne mën naa garanti ñi ci des. ñi ci des waaye. li wér te wóor. ah bu dee waxtaanee wuñ ko seen biir ba pare mën naa am ñoom d' accord nañ ne gouvernement bi ay ngumbaay yeeg yooyu. moom buñ ci dégg kenn. parce que ni ñu waxtaanee seen biir ba ne ku ñu fal na nga démissionné. démissionné parce que loolu du loi. mais xëy na ñoo ko waxtaanee seen biir. ba léegi cumul. Mhm. mën na nekk parce que loi réew mi maye na ko mais mën na am ñu waxtaanee ko seen biir. léegi bi mu ne xumbaay yeeg ngumbaay yi kenn duñu tuddee doom ba euh, bon kenn du tuddee. Euh, làmb ngénte yi ak yooyu. Mm-hmm. bu ñu ko tuddee yàq nga ko gis naa am ñu bëri ñu mu metti mm-hmm. ñaar yi débat yii daf ma jaaxal débat u Birame Souleye Diop bi ak toog muy dox. toog muy dox xam naa dinañ ci ñëw mais. bi mu ne ay làmb ak yooyu kenn duñu ko tuddee ñuy puukare wu Sénégal la ñuy tuddee waa mais tuddeel Sénégal. Mm-hmm. affaire bi jeexoon na. man nag li tax mbër yi tontu jaaxal na ma. parce que moom waxul ak mbër yi. Mhm. waxul bu kenn bëree. waxul wàññi leen cachet yi. Mhm. promoteurs yi sax ñoo waroon a kaas parce que ñoom ne bu leen ñu tuddee dara. Mhm. te nag sëriñ bi loolu mooy dëgg. bu doon euh, jom wala ngor waruñu woon xaar sax ñoom ñu wax leen ko parce que bi ñuy ne ci opposition bi di galleero oui kenn xalaatul tuddee leen dara. léegi ñoom ñu yore ñoo. ñoom ñuy yore alalu réew mi nga di leen tuddee loolu mooy jox ñu ci alalu réew mi. bi mu yoree alalu boppam tuddee woo ko dara parce que da nga jàpp ne yorul dara. ñu dénk ko alal nga ñëw di ko dénk mu ne saa yi bul ma tuddee parce que lii ma yor léegi alali jàmbur la cest à pour man loolu logique la. même su fekkee jàpp nañ ne nee nañ wax gi mu ko wax erreur de communication la. loolu loolu réponse politicien la mooy politicien bi nga xam ne. ok buggul ko ko ŋàññi. buggul ñàkk ay membre moom tontu boobu arrangé wu ko. waaye li mu wax man jàppuma ci lu aay te jàpp naa ne promoteurs yeeg mbër yi soxlawul woon ñuy tontu bu leen ma tuddee ñu ne ko jërëjëf duñ la tuddee tuddee keneen ku bëgg ñu tuddee ko coow li jeex waaye ah dañ lay tuddee dama lay tuddee par force fan la am. <laughs> yow yaay kan làmb ma ne ko sëriñ bi. làmb <laughs> yokkul ci réew mi dara. làmbu ñeenti mbër yi ko siq képp la jariñ dara ñoom la ñuy fay ay téeméeri million ki juróom fukki million ki nangam nangam kenn xamul fu xaalis ba di dugg kenn xamul fu muy génn ñii xaalisu jàmbur la ñu leen dénk bu leen kenn tuddee làmb loolu mooy dëkk ok bu leen kenn tuddee tànn béer bu leen kenn tuddee football. loolu nañu xool borom alal yi nga xam ne ñoo ñàkk seen alal ba def ko nañu dem ñu tuddee leen ko mais ñi ñu dénk alali jàmbur te démb kenn tuddee wu leen woon buñ leen tuddee tey ñu def cay million dañ leen a war a auditer. ok ñaareel bi ci des. Mhm. bu fekkonte ne mbër yi ñoom bi ñuy nekkee ci jafe-jafe taxaw nañ seen wet. mais su boobaa boo leen tuddee ñu jël waaye ñii biñ nekkee ci jafe-jafe yow da nga dem ci camp pouvoir bi. Mhm. waa léegi comme yow ba muy neex yaa ngi ñee la ah bu naqaree doo ca continuer rek. Mhm. ñoom ku leen bàyyi kon sañ na ñëw wëlbatiwaat ñëw di tagg ñii ak di leen tuddee loolu jàpp ma ne seen ngor dina leen ko may man kay damaa jàpp ne ñu bees ñii ñëw moom même buñ ko waxul woon ñii danañ rus a dem foofa nag di leen tuddee ay làmb ak di leen tagg ak di leen yéegal war a fàtte waa bennoo ak liñ fi def yépp mhm. loolu jàpp naa ne. seen surtout que si fin décembre bi ak début janvier bi. làmb yi ñu fi tegale. Amadou Ba façon drapeau bu nekk am na ko fi. ay combat royal. rek la ñu tëgg diiru ñaari weer. samedi dimanche bu ne ñu tëgg lamb samedi dimanche bu ne ñu tëgg lamb waa léegi nañ tuddeewaat kooko rek ñoo ñaa ngi fi de. Hmm. sëriñ bi jom daal dafa am solo ci nit. mooy am na ci loo xam ne la mbay peex waxoon rek. bis bu ma bàyyi Ablaye Wade. ku ma dëgmal nga daw. képp ku ma dëgmal war nga maa daw. war nga maa daw li ma jaaxal nag daa xëy bàyyi ko jàpp président Macky xaw ma loolu noo koy tuddee <laughs> wax dëgg yàlla mais am na loo xam ne ku ko mën nit ñi war laa ragal. moo tax président Macky bi mu defee passation de service rek ci daw dem. dem yoonam. Mhm. mere gi leen di mere. Mhm. mere gu raw na Abdou Diouf mere woon nii. dana leen ko mere parce que dana xam ne ay nit yu foolo yoon. président Macky Sall musul joxañ waa bennoo fenn ñu teg ci baat ñu demee bañ xam ne nguuram jeex ne mu ne bokkatuma la joxoon ñu lànk joxoñ ñu lànk. ku nekk ber sa saawa si bopp te léegi nee na bokkatuma affaire ba jeex na mënatu ca dara waaye da leen a mere de loolu moom booy boo ñu xam ko <laughs> moo tax gis nga yenduwul sax nekk fa di lijjantee ko defi affaire pare dugg avion am na fes xam naa bu demee mi ngi xaar ko ko woo téléphone ba mu wax la lu bon. <laughs> ok ñëw ci baatu muy dox bi junj nga ko sànq moom itam daanaka def na fi coow am na yenn euh, ci ay ustaas sax yoo xam ne amaanaam gis nañ ci seen bopp. gis nañ ci seen bopp man nag toog muy dox. man dama gis affaire bi nekk débat mu jaaxal ma. waaw ah, te toog muy dox lan mooy problème. waay cest yow bu dee toogoo muy dox. <laughs> yow buñ na toog muy dox day jeex. mais neel bismillah. xaj <laughs> Mansour a ah, ñu de penc mi ñu nekk. bàkk yi xam nga lan la woon ñàkk jëriñu. jëf jël. lu waay liggéey yaa ko moom coono du réer boroom. yii moo nekkoon su suñuy bàkk léegi ñu bëgg boole ci bàkk yi toog muy dox. sëriñ bi toog bu ñëpp toogee muy dox euh, euh, loolu est mën naa nekk. <laughs> c'est-à-dire yow même boo demee ba toog muy dox sax. <laughs> yow bul favoriser toog muy dox. ndax li nga toog muy dox ñeneen ay dox moo tax li nga toog di dox. kon yow da ngay fexe même boo toogee muy dox. yow bul favoriser toog muy dox. mais toog muy dox sëriñ bi nan la ko nit mën a contrer maanaam buñ ne toog muy dox daa war a jeex neel eskay parce que liggéey farata <laughs> mhm. inna allaha yuhibbul muminul muxtaraf yonent sallallahu alayhi wa nee na yàlla sopp na lool jullit bu am mécc di yëngu ci dara mu ne yowmal xiyaam kenn du ñëw teew te duñ la laaj la nga doon lekk ci noo ko amee. ok kon yow buñ ne toog muy dox daa war a jeex ñaar moo mën a nekk yow dangay ngay toog muy dox ñu ne waaw mais bul ko favoriser toogoo muy dox gars yi waxuñoo ak yow. et encore langage yu mbedd la. <laughs> langage yu mbedd loo jiitoon. oui oui. man nag bi ma ci metti mooy ay Aïssatou Diop Fall xam naa maa ngi koy door a tudd sax mais xaj Mansour vidéo boobu war nañ ko xool daal. Mhm. parce que dafa dalal benn député euh, Cheikh Oumar si ne ko régime bu ñëw day am coow bu mu àndal. régime président Macky Sall bi muy door a toog mooy dafa ne woon sëriñ si ay citoyen simple lañu. Mhm. coow loolu nekk ko mais régime bii ñëw moom muy ñoom sonkoo jomaay mm. bi nu ñëwee ñoom mm-hmm. li ñu indaale mooy toog muy dox daa war a jeex te lin ci jublu dégg nga de mm-hmm. mu ne lin ci jublu mooy sunu xalif général yeeg yooyu duñ ko wax waaye loolu lañ ci jublu loolu mooy li kenn waxul mm-hmm. man problème bi ma am ci wax ji lan moo tax xelam daj xalif généraux yi yow ñu ne toog muy dox sa xel daj xalifa yi yow ñooñ dañoo toog muy dox est-ce que xool nga seen parcours fan la ñu jaar jàng bay liggéey yore ay tool ba fii ñu nekk ñi ëpp ci ñoom tool yanu yor mën naa yor sa famille. Mhm. nga jàpp ne dañuy toog muy dox. waaw yow biñ ne toog muy dox yow xalaatoo sa bopp sa bopp yow. xalaatoo sa pap mhm. xalaatoo sa yaay nga ne xalif généraux yi la. parce que dañoo bëgg lu yomb ma ne mii ñii dañoo yab suñu xalifa yi kon cest à yow lu tax sa xel dem ci ñoom nga taxaw di leen tudd yow am nga papa tudd ko am nga sa bopp tuddoo ko nga ne xalifa yi lañuy ñuy waxal. Mhm. kon yow da nga jàpp ne xalifa yi dañoo toog muy dox kon da jàpp ne amuñu ay tool. kon nanga jàpp ne amul dara ci lu ñuy def moo tax ma jàpp ne gis nga ñii di wax ne dañuy défendre sëriñ sëriñ bi ñii dañ ñoo yàpp ñoom ñooy ñàkke teggin sëriñ si. toog muy dox ñëpp xam nañu ko gis nga démb rapport yi commencé di génn am na ci benn agent bu ñuy wax RTS la nekk 12 ans musul teg tànkam ca télé ba weer wu dee nu fay ko 12 ans musta teg tànkam ca tele ba te embauché nañ ko weer wu dee nu fay ko. te loolu entreprise yu bëri moo fa nekk. société yu bare moo fa nekk administration bi plus de deux cent mille personnes yoo xam ne ñi ngi leen fa gis ñu leen di fay te liggéeyuñ dara. liggéey xëy si wuñ gont si wuñ. sëñ bi loolu du toog muy dox. Mhm. yow loolu nit ñi wax ko ñu koy kaas au lieu sa xel daj loolu yow sa xel nga ne day daj ay xel yu lan moo tax nga yóbbu ko foofu cest à am ay tappalekat ay businessman yoo xam ne ñi ngi ci dëkk bi di toog muy dox di dóor nit ñi ak di laaj nit ñi xaalis di chantage nit ñi yooyu yëpp nga jëllu ko sa xel mi daj. les xalif généro moo tax ma jàpp ne soxna si ko yabaate la hmm. am na ñoo xam ne bu ñu xëyee ndakaaru fii génn bureau bureau ña nga fa lijjanti borom alal yi dóor taf taf génn wàccaale ay centaine de mille te ñu dara ñenn ñu dafa leen embauchement fictif yoo xam ne kenn xamul xamuñ sax fi ñuy liggéey fan la. sëriñ bi moo tax buñ ne toog muy dox man dama jàpp ne ku toogul muy dox yow loolu lu soyoo. soyoon ne ko ci. ah, ah léegi nag boo ci meree am na lu xew. Hmm. te encore toog muy dox kenn waru ko favoriser. léegi nag bu ko nit ki waxee laaj ko yow lan nga jublu ci toog muy dox. Mm-hmm. su ko defee mu ne lii laa ci jublu mais yow waroo am yabaate ko dool ni xalaat ne xalifa bi lay wax. te yow xalaatoo sa bopp xalaatoo sa papa xalaatoo kenn waaye toog muy dox moom sëriñ daa war a jeex ci miim réew. ok waaye kuy jàngale alxuraan man jàpp naa ne toogul muy dox. ndax jàngale <laughs> alxuraan métier la. man moo tax bi na toog muy dox gisuma ci sama bopp ndax damaa jàpp ne ku toog yi jàngale alxuraan. c'est que ka ca maître français ba ca classe ba moo taxaw di jàngale te jàppuñ ne day toog muy dox mais sëriñu daara bi di jàngale loolu du toog muy dox de kooku day liggéey parce que day jàngale alxuraan dañ ko war a fay ok moo tax ma jàpp ne ñi ciy man lu ñu ciy xuloo ok vraiment ok ñu duggee ko ci euh, li nga xamante ni moo di euh, li nga tudd sànq muy mhm. contrat wala boog itam ah. alal ji nga xamante ni ñu bëree bëri jàpp nañu ne mhm. état bi fi jógee mhm. am na ci loolu randal na ko tey rek ñu ngi dégg benn jet euh, privé amaana boo xam ne président Macky <laughs> jënd na ko bees est-ce que jàpp nga ne ñi toog Euh, seen mission ci wàllu woowu wala bëgg itam fi leen askan bi di xaar ci wàllu delloo si alal ji